be yep ci turu señ bi ci teru diwaanu xiyaarul mudidina ci turu mbok taalibe yep seen taxaway rafetna waye lol nak niko señ bi di faral di waxe rek señ mom danaka amul tank gannaaw bu deñ ma lay liggey danaka bala muy noppi sax djublu na euh kon liggey yi ñi ngi ci sunu kanam amna soñe bo nga xamante kersa la sax ñu ci jaar da ci jaar muy sas yi nga xamanteni ni mbokk taalibe ji ci seenu bëgg liggéey bi nosewu bëgg liggéey bi dox waxoon nañ ni weer bu nekk kenn ku ci nekk lépp lu mu am te téléwu ko mu nekk loo nga xamante ni weer bu nekk dañ koy dajale ngir mën koo def ci liggéey yi euh, loolu nag ma jàngat bi ma ci am mooy ca njëlbeen ba wax dëgg yàlla liggéey bi rafetoon na maasale woon na waaye dafa mel ni lu ñuy gënte dox rek mu mel ni dañ koy fàtte wala dañuy yokkat te loolu nag liggéeyub suñu borom moom loolu dafa nekkul lu war a nekk yitte bañ ca waroon am ca départ ba yitte jooj moom wërta màgget benn yoon daa war a nekk loo nga xamante ni day yees di yokk waaye waruñoo tàmbali dara dem ba ci biir mu mel ni jéego yi ci doon dox dafa mel dañ cee gën a dañ cee gën a delluwaat gannaaw loolu nag soññee la boo nga xamante ni nii bu ñu paree incha allah dinañ convoqué réunion boo nga xamante ni communauté de pilotage bi euh, rawatina ñi gère wàllu finance bi ñu bokk toogaat suñu biir waxtaanaat xool naka la ñuy def ba euh, li nga xamante nii moom mooy koom boobu ñu fexe ba loolu moom ñuy fexe muy muy teew weer bu nekk. ndax fi mu nekk nii liggéey yi nga xamante ni sëñ bi da ko daan biral muy mel ni ubbite jumaa ji yooyu moom mi ngi sunu gannaaw ba tey nag des na fay rataxal waaye sëñ bi moom ku ko xam-xam ni du génn ci liggéey ci chantier. bëri na ay liggéey yoo nga xamante nii da koo xuntoo si biralu ko ci mbooloo mi waaye mi ngi ci kon nag loolu nag dafa waroon nekk loo nga xamante ni euh, dafa waroon toog di xaar sëñ moom warut a benn yoon ni nañ jëm ci lii fekk la koy yéwénal fekkul mu toog kon loolu moom ñu ngi ciy soññaat mbokku taalibe yépp ñu fabuwaat fabu bu bees fexe ba fii ak cant ga euh, jéego yi ñu war a dox ñu baral jéego yi. fii ak cant gi ñaari weer a ci des daanaka di ko fàttewaale mbokk taal yooyu moom it am na réunion boo nga xamante ni moom it bu soobee yàlla incha allah dinañ ko ci waajal ngir mën a seet naka la ñuy def ba cant bi nañ ko daan defee at mu nekk ren moom mu am ay innovation ba pare gën a euh, gën a gën a ñoŋ gën a gën a gën a muxtaare xam naa ne du ma guddal ci ci kàdd yi bu fekkee alaaji góor a jege na rek ñu bàyyi ko mu sànni ci ay kàddu bu noppee ñu mën a julli ku baax gi dañu woon bu ñu jullee ba pare moom da ciy bëgg a euh, sànni ay ay kàddu moom tamit bu ñu paree wéyal li des ci programme bi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu euh, mbokki yi ñu ngi leen di ziar ngeen ngaa sel de di jiital ci ziar bi ak nuyoo bi sunu sang bu tedd bi Cheikh Ahmadou Mbacké Maoul Hayaat Euh, xam naa ni wax jël kàddu ci jotaay bi moom lu ñuy lu ñuy jafe la euh, wax bokk sunu mbokk taalibe yi jiitu wax dëgg yàlla li mat a leeral lépp ak li mat a wax lépp wax nañ ko euh, li ma ciy toftal rek ci sëñ Assane li mu wax ginnaaw ñi nga xamante ni ñooy borom xam-xam yi sonne nañ ci soññe bu am solo ci doxin bi defe naa ni li ci des mooy li sëñ Assane wax léegi ci liggéey yi nga xamante ni moo ngi suñu kanam ak cant gi si te loolu doxin mi ngi ci doon dox yaakaar naa ne xam naa ne ñu gën koo euh, fësal gën koo yokk waaw ci yitte yi nga xamante ni daal nañ ko daan nañ ko teewal ci weer wu nekk sax kon yooyu dama ci euh, soññee rek lu ci jël sama bopp mooy yitte yooyu ñu gën koo fonk bu baax a baax a baax a baax te gën ci am taxawaay nekk ku baax ci saa su nekk waxtu nekk mi ngi ciy soññee. te soñe bi tamit yomul rek ci ñu ko wax waye wéru dé dee na ni ci diwan yépp yi nga xamanteni ni ties Kër mbé Fall ak eh, Touba yëpp defe na ni moy ap ap yité mo ci jitu barkelo mo ci jirus sa su nek kon loolu war nañu doy ap soññee bu mat sëkk bo xamanteni ni lépp lu mu nek rek ñun jarul muñ ci soñ jarul muñ ci eh, xaar ni ko señ Assane Seere lepp lu mu nek wax nañ ko sa lu mu nek rek lu ko ñor la te. képp koo xamante ni jaayante nga te wéeral sa jaayante dëggal ko di nga xam ne lépp lu sëñ bi nekk lu ko ñor lu tey war war nga cee war ko cee dabi sa kéem kàttan kon loolu ñu ngi ciy suñu bopp baax a baax a baax ni ko sëñ Assane waxee liggéey yi xam ne mu ngi suñu kanam eh, ni mu ko junjee woon bi nga xamante ni junj na ko mooy daara yi jekk ci kunun nga xamante ni wax nañ euh, tàmbali nañ ko sax daanaka birig nañ birig yi ba mu taxaw léegi jublu ci liggéey bi rek dëgg dëgg liggéey bi moo ci des ak yeneen yi nga xamanteni say sëñ wax na ko mi ngi ci suuf yooyu chantier yoo xamanteni mi ngi koy doxal boppam yooyu yëpp mi ngi ci te lépp lu mu war a lépp lu mu nekk taalib war na koo gëstu war na koo xam ba xam taxawaay bu nga xamante ni moo ci taxawaay parce que loolu mooy ak jaayante dafa naa ñi ñuy jiitu léegi wax nañ ko ci wàllu taxawaayu taalib yi war taxaw ci ci ci ci jaayante ak dëggal ak jaayanteem te loolu bokk na ci niñ ko borom xam-xam waxee sa alal ak sa jëmm dafa naa ñaari ponk yooyu mooy ponk bi gi ëpp solo ci taali bi nga xamante ni jaayante na te war a mën a dox jëm ci ngërëmal sunu borom subhanahu wa taala kon loolu ñu ngi cee eh, koy bàyyiloo xel sunu bopp bu baax a baax a baax te dinañ ci bàyyil xel dinañ ko bàyyiloo xel ak leneen la ponk moo xamante ni tamit dara ëpp ko ci solo ci jaayante dafa naa ne borom xam-xam am luñ ci junj léegi mooy ay teggin eh, man teggin moom gusuma lu ko ëpp solo ci taayal bi bi nga xamante ni sukk na jaayante teggin kese ñu naan ay teggin mooy tax nit ñu jël nit teg fa ko sa kaw waaye ñàkki teggin tak mooy tax ñu tegin nit ca kaw di ko caw loolu defe naa waxee la kon teggin mo la nit di àggee suñu borom teggin waaye du kër kër kër yëngoo def ak jëf ak am solo la ay teggin mo li nit ki di àggee sun suñu borom eh, ku baax ki bërki démb rek bi bi am na su doon laay biir ci wàllu googu te loolu tam bu ko laajee biir ci ki kenn fu mbooloo mi lay doon dafa dugg si xam naa daa dugg rek romb nuyoo noonu dem mu woo ko mu ne ko nit boo jubee sa kilifa sonn da àgg ba ci suuf nuyoo ba ñu fay la jàmm sante ba suñ bi ne la bisimilah mën ngaa yokk ba soog a jóg ndànk dem waaye doo ñëw rek romb rek nuyoo daal di romb dem déedéet nee na nit boo jubee sa kilifa loolu bokk na ci teggin da koy. taxaw da ngay sukk parce que boobu yëpp nekk ci kaw suuf ci suuf ba nga ànd dal nga nuyo ñu fay la boo jàmm sante nga jàmm sante bu mu la man nga yok wéyal sa sa sa nga dem lolu teggin la te lolu wax deug yalla ki ñaanal tamit euh taw féex la parce que yoy yëpp mo nako ci bañ a fekk moo na bañ leral nit ki mo waron dem bay gëstu luy teggin ñuy def jëfante ak ak ki nga xamanteni mom la jaayantal moo ko waroon moom moo ko waroon gëstul boppam waaye bu demee ba jël laayee bi yooyu chaque jour waxtu wu nekk rek mi ngi seetantal di la di la laayee biir di la dimbali ci sab dox loolu wax dëgg yàlla ndimbal la. te moom li may wax rek maanaam nit ñi ñu ni ko ku baa borom xam yi doon leeralee léegi moom ni mu oyofalee boppam ni mu wàccee boppam képp bu ko ko ci jàppee noonu wala nga doxalee kook noonu wallahi lazim doo jariñu loolu wér la doo jariñu parce que euh, ni ko borom xam-xam doon nañ ko leer léegi gis nga nitu nituk yàlla nga xamante nit ki nga xamante sunu borom def na leeram ci moom teggin yu yu ke teggin lu mu gën a kawee moom ngay war a jëflante moom parce que daa mel ni sunu borom ngay jëflanteel jëflantewul ak jëmm ji jëflante sunu borom ngay jëflanteel parce que ñun li ñu taxaw li ñu tax a ñëw fii du ni ko euh, mbokk yi leer lay sànq du sëñ sëñ Modou Ajara déedéet maamul xayat li ñuy jëflanteel maamul xayat nag mm-hmm. leer ak sunu borom la maanaam leer sunu borom boobu ngay jëfanteel kon nag teggin yu mat sëkk nga war a jëfanteel boo bëggee jariñ kon loolu tamit defe naa ne ponk bu ko ëpp solo ci ay teggin man gisuma ko kon nag loolu ñu ngi koy bàyyi loo xel suñu bopp bu baax dina ko bàyyi loo xel parce que dañuy gis ci ay yeneen bërëb yoo xamante ni wala yeneen kilifa yoo xam ne wóor ni maanaam dara nekkul ci ñoom waaye dañuy gis ni ñi leen topp wax dëgg yàlla teggin yi bu ñu bu ñu ñu toogoon ci jotaay bi bu ñu ko gisee ñëpp dañuy daal di ñoom ci suuf ba mu ba mu ba mu jàll ñu soog a ñu soog a jóg te da ngay gis ni maanaam loolu ay teggin la waaye da ngay gis ne kañ koy defal sax daanaka moom mën a rek waaye rek rawatina nag boo xamante ni leer sunu borom mu ci boobu nag loo def rek sunu borom boo ko defal waaw ibli maanaam sunu bi mu doon sujjalloo malaaka yi ci ci aadama du jëmmi aadama bi def bi mu def banam ndox la waaye leer gi mu def ci moom nga xam ne ci moom la tukkee koo def ko ci aadama moo tax mu leen koy sujjalloo kon nitu yalla ko xamanteni leeram ci mu su jóor ko sax lu dagam la kon lolu ñu koy bayyi bàyyiloo xel suñu bopp leen ko bàyyiloo xel te gini mom moom dara upp ko solo kon wacc fof foofu kàddu yi waxtu bi nga xamanteni ku baxte waxon na genn julli ci assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waaw tabarkàlla allah ji góora kaddu yi epp na bañ wax matale na te na macha allah yal na yalla fay yal na yalla barkel kon ñun ñëpp ñoo ko déggandoo euh, di fàttali rek incha allah dibeer euh, bi mujj ci weer bi muy le 28 ci lañuy jàpp ndaje comité de pilotage bi incha allah euh, provisoirement jàppagum nañ ko fii jantul firdaw si Thiès bu 11 incha allah xam naa dinañu lancé communication yi ci groupe whatsapp yi rek nañ ko daan defee incha allah ñu bàyyi ko xel. te te waajal ko kon ñu ngi yemale foofu kàddu yi. waajal waxtu bi incha allah ngeen mën a joxe waxtu suñu borom bi.